الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله ورضي الله عن مولانا أبي العباس سيدي أحمد التجاني ورضي الله عن وارث سره وصاحب فيدته العظمى مولانا شيخ الإسلام حاج إبراهيم بن الحاج عبد الله نياس سيدي محمد الماحي نائد الخليفة نستأذن نيجي بداية نيجي ندخل مولانا الخليفة سيدي أحمد التجاني ديكون ندخل نياريون نخبايم baayam بس جناوبم تكي bi ñëwee na taalibe yi maa ngi leen di ndokkeel ci seen ziyaara bii ngeen ñëw te fekku leen ma fi ndax ngir yàlla loxoon te bi ngeen ñëwee yàlla ngeen fi fekk tey jii bi ma ñëwee itam yàlla ngeen fi fekk te ñoom ñoo jàngale ne ay nay jullit moo gën a gaaw jëfam te sëriñ bi xamuñ ne xam na ñépp xam nañ ne ay naam moo fi jiitu ziyaara bi itam daf ci jàngale jàngale bu rëy ndax buñ ne dañuy ziyaare sëriñ bi mu ne kenn duma jiitu ci jëfi taalibe njëkk a teg ci ziyaara bi comme ni ko imam déclaré kooku dag na bépp ngant kon nag programme bi ci ndigalu sëriñ bi ni mu daan demee lay demee alquranul karim moom la ñuy ubbee jotaay bi di jotaayu cheikhul islam haaj ibrahim tey nag bay laaj ki koy jàng mooy bay alhaaji mouhamad zeynab ibnu sayidi cheikh ahmad tijaani ibnu maulana pa omar ñang ibnu الوالد الحاج عمر نيان وسيد الشفاعو فليتفضل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 ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف وحمر مختلف ألوانها والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله كتاب الله وقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور بسم الله الرحمن الرحيم إن الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة program ni daan demee rek lay demee ki nga war a ne moo oote ci turu bi kàddu gi nga xam ne moo ooxoon taalibe yi oote na di al imaamul akbar taalibe yi oysi nañ ziyaare nañ niñ ñëwee loolu moo koy njonjoo waaye ki nga xam ne moo toog ni ci suñ kanam ñëw ca heure ba mi ngi nii taaral jotaay bi kon sayidi wa mawlaaya hmm? rasu sax bi kon kàddu gaa ngi noonu mbokk yi sëriñ bi ne alhamdulilah asalaamualeykum ñu ñu ngi toog ci kanami mbooloo moo xam ne. yàgg nañ fee toog. yàgg nañ fee toog. fekk suñu kilifa mu ngi teew. suñu mu ngi teew. suñu yaakaar ci yàlla. suñu yaakaar ci yàlla. suñu ci yonent yàlla Muhammad. ci yonent wa sallam. booba nag mag ñi ñoo fa daan teew. booba nag mag ñi ñoo fa daan teew. topp ndigalal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass. radiyallahu anhu. ñoom seen liggéey lépp ngir yàlla. ñooña nag seen liggéey lépp ngir yàlla la. ba yàlla jël leen. ci mbaaxam fekk seen jëhit yaa ngi fi des fekk seen jëhit nañu doon xàndeek baay mu ngi fi des nañu doon jiite leen yar leen yar leen tarbiya leen xéegal leen yàlla yàlla. ba ñoom ñépp ñu xàmmee lu yàlla ak lu duut di yàlla. te sëñ Mbaye wax na fii ne. te sëñ Mbaye wax na fii ne. koo xam ne. koo xam ne. moo la jiite. yóbbu la ba nga xam ne xàmmee nga wax ju jëm ci yàlla yóbbu la ba nga xam ne yow xàmmee nga. wax lu jëm ci yàlla ak lu jëmut ci yàlla moom kooku moo la moom ci boor bu ne kooku moo ci boor bu ne xam ngeen ñu toog nag ci seen gannaaw ñu toog nag ci seen gannaaw war leen a roy ci nañ doon liggéeyalee yàlla war nañ doon liggéeyalee yàlla ànd ak suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ba moom mu wax gërëm leen. ba moom mu wax gërëm leen. te yaxal na ko ci kayit. te yaxal na loolu ci këyit te yaxal na loolu ci kayit. kon ñun suñu bëggee liggéeyal yàlla. kon ñun suñu bëggee liggéeyal yàlla. bëggee liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima. ñun ñii suñ bëggee liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu seet ci ñooñu àndoon moom. dañuy seet ci mag ñooñu àndoon ak moom. yal na leen yàlla fay yaa rabbi. jëmmal nañ. jëmmal nañ. wattu nañ. wattu nañ. sellal nañ. wane nañ. xamle nañ. xamle nañ. yëngatu nañ. ba waxtu yëngatu ba waxtu yëngatu jotee. ba yëngatu jotee lañ yëngatu. nañ tekk nee nañ tekk. ba waxtu tekkaaral jotee. ba dara ci seen dund. amul lu mooy gërëm yàlla. lu mooy gërëm loo yàlla. ñu ngi leen di ndokkeel. ñu ngi leen di ñaanal yàlla. ñu ngi ñaan yàlla itam. ñu ngi ñaan yàlla itam. mu teg ñu ci tànk góor ñooñu. mu ñu liggéeyal yàlla. ñu liggéeyal yàlla. na ko mag ñi doon liggéeyalee. na ko mag ñi doon liggéeyalee. sama lay dalee. na ci boppam lay dalee. su ma toogee fii. na su toogee fii. di am lu muy wax. di am lu muy wax. sëriñ Bay Ñas moo dem moom la Baay radiyallahu anhu wax ne moo ne ci bopp taalibe yi te moom defut ko fi yàlla ko fi def ne léegi nag jàmbu xeebu bii mu ngi wax ci baatam ci ndigalal Mawlana ci ndigalal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu yal nañu yàlla saxal ci loolu yaa rabbi na li muy dénk boppam balaa daraa xew balaa daraa xew nañ jàpp na Mawlana Cheikh Ibrahima mooy suñu kilifa anhu mooy suñu kilifa ñun ñëpp. mooy suñu sëriñ. mooy suñu sëriñ it. yar suñu mag suñu baay. moo yar suñu baay. moo itam. moo yar itam. yaakaaruñ ci yàlla lu mooy moom mu taxaw. yaakaaruñ ci yàlla lu moom taxaw. moom dafa wax ne mooy suñu buntu ci yonent yàlla Muhammad. moom dafa wax ne. mooy suñu bunt ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne bu sañoon moom ñëpp toog topp ko topp ko di ko déglu di ko déglu lu mu wax ñu def ko lu mu wax ñu def ko lu mu tere ñu bakoo bu sañoon ne loolooy xam Mawlana Cheikh Ibrahim moo ñu tax a teew ci barab bii tey ñun ñëpp nag bëgg nañu ko waaye xamuñ nuñ koy toppee loolu moo ñu sonal ne dafay xoote taalibeeg soppe yi ak kum mën a doon nga ñëw ñu topp maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu bu kenn foog lu amut bu kenn foog lu amut maulana Cheikh ibrahim Niass mooy suñu sëriñ ne li maam Alaaji Abdoulaye doon wax ci moom la koy wax مام الله جي دا دون كو بغ فو جوخن جانت بي مو فنك كو بغ فو جوخن جانت بي مو فنك ديكو جوخن جي بنكو بي مان تي لولو نم موم نك تي لولو دا فاي واخني كو بغ لو واخ ني كو بغ لو واخ ني داف كو تغول سي واخي الله جي تغول سي واخي الله جي ابراهيم رك لو واخني loo wax ñu def ko. soo foogee leneen. soo foogee leneen. moom mii day bokkut. moom ne moom la bëgg. moom la gëm. ne moom la gëm. moom la ne moom la hóolu. yaakaar. ne moom la yaakaar. lay topp. ne moom lay topp. loolu lay def. ku bëgg mu ànd ak yow ci loolu. ci loolu. ku bëggut nag. ku bëggut nag. bu ma la juree. bu la juree. wala ñu jural la. wala ko. ak koo mën a do ak koo mën a dox. noo mën a mel. noo mën a mel. foo mën a ne. foo mën a ne. moom génn na ci yow. loolu la bëgg ñépp def. loolu la bëgg yéen ay mbokkam. fii mooy fii mooy bërëb bi dajewaay. ci ndigalal Mawlana Cheikh Ibrahim. ci ndigalal Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu. muqaddam yëpp mu ngi taxawu. ne muqaddam yëpp ñu ngi taxawu. xam ngeen muqaddamam yi de. xam ngeen muqaddamam yi de. ni ñu ko màggalee. ni ñu ko màggalee. ni ñu ko wegee. ni ñu ko wegee. ni ñu ko xooloo. ni ñu ko xooloo. ni ñu ko yaakaaree. ni ñu ko yaakaaree. ni ñu bañee wuuteeg moom. ni ñu bañee wuuteeg moom. ku bëgg dem ku bëgg jub. ku bëgg a dem ku bëgg a jub topp leen moom baay ñoom baay gërëm na leen yal nañu ci yàlla boole yaara bi yéen taalibe yi ne mu ci biit nañ topp Mawlana Cheikh Ibrahim suñu ko defee suñu ko defee noppalu ñëpp lay xoo na ñëpp lay xoo soxna soxna yi doom yi doom yi taalibe yi taalibe yi soppe yi soppe yi ñëw leen rek ñu ànd ak Mawlana ñëw ñu ànd ak Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu bii nag ne pay bii nag pay Mawlana Cheikh Ibrahima la radiyallahu anhu moo ñu tax a jóg. moo ñu tax a jóg. moom lañuy xool. moom la ñuy déglu. suñu fi ñëwee rek. suñu fi ñëwee rek. turbine bii. turbine bii ñu toog tey. soo ko fi gisee tey. ne soo ko fi gisee tey. balaa nga ko fee gisaat. balaa nga ko fee gisaat. at mi dafa jeex. at mi dafa jeex. ba mu dellu si. Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moo tax. radiyallahu anhu. ne mu ngi xoo ñëpp. na ñëpp lay xoo. bàyyiwut kenn. jamono ji nag. jamono dafa bëri ñuy foog xamut. dafa bëri ñuy foog xamut. wërsëg yi dafa yaa ne. wërsëg yi dafa yaa ne. pexe yi dafa bëri. pexe yi dafa bëri. bés bi dafa bëri. bi dafa bëri. piis bi dafa bëri. piis bi dafa bëri. lu nit mën a waajee rek. lu nit mën a waajee rek. am na am na. soo ko defee ba pare nag. soo ko defee ba pare nag. bu la yàlla dimbalewul dëgg. bu la yàlla dimbalewut dëgg. nga foog ne yaay bàyyi. nga ne yaay bàyyi. da nga laal loo xam ne sax waroo koo laal. da laal loo xam ne sax yow waroo koo laal. waaye ma ngi leen di waxoon nañu ko fi beneen yoon. ñi fi fi teew ñëpp. daanaka ay doom ay doom lañ. mag ñi dem nañ. ñi dem nañ. ku bëgg lu yomb. toppin wu baax. toppin wu baax. toppin wu rafet. royal ci ki nga ki royal ci ki nga huutu. saabu yu mag yi yëpp. saabu yu mag yi yépp topp nañ ko sellal nañ topp nañ ko sellal nañ waaye li may wax léegi waaye li muy wax léegi ñun ñëpp bëgg nañ ko ñun ñëpp bëgg nañu ko waaye xam ngeen ne ñun ñëpp toppuñu ko waaye xam ngeen ne ñun ñëpp toppuñu ko te topp ko rek mooy jëriñ te topp ko rek mooy jëriñ ndax nit ku mu bëgg ndax nit ku mu bëgg daf ko war a topp daf ko war ñun bëgg nañ Mawlana Cheikh Ibrahima ñun bëgg nañ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass penkook xarfu ndeyjoor ak càmmoñ ñëpp bëgg nañ ko ñëpp bëgg nañ ko waaye nag fi ne nii waaye nag fi mu ne nii ku nekk ngi seet sa yoon wooy xaw ku nekk ngi seet sa yoon wooy xaw man Ibrahima nag ne moom Ibrahima nag xamut lu mooy Mawlana Cheikh Ibrahim xamut lu mooy Mawlana Cheikh Ibrahim dama bëgg ne dafa bëgg ngeen ñëw ñu topp ko bàyyi li ngeen di def yépp bàyyi li ngeen di def yépp sànni ko ca gannaaw yi ko ca gannaaw yi gannaaw. démb li xewoon. démb li xewoon. mooy sëriñ bu mel ni Mawlana Cheikh Ibrahim. mooy sëriñ bu mel ni Mawlana moom lañu topp. mu xam-xam. xam ci saayir ak baatin. xam ba pare. xam ba yar ay taalibeem. ñu déggal ko. mu xàggale leen ci yàlla. mu xàggale leen ci yàlla. yëkkati ba ca kaw. yëkkati leen ba ca kaw. ñu janoog maqaama yi. ñu janoog maqaama dund ci moom. dund ci moom. dellu si. dellu si. di jaamu yàlla. di jaamu yàlla. te duñ ko sàkkal bokkaale. moom ci boppam moo wax ne. moom ci boppam moo wax ne. ki gën tuuti ci sama taalibe ki gën a tuuti ci samay taalibe yi. génn ci bokkaale. dëñ na ci bokkaale. génn na ci bokkaale. génn na ci bokkaale. soo bëggee xam loolu nu mel. soo bëggee xam loolu nu mel. fexeel doon taalibeem. fexeel doon taalibeem. ki mu waxoon ne moo mag ci taalibe yi. ki waxoon ne moom mag ci taalibe yi. muy Cheikh Serigne bay Niass. toog na fii ngeen dégg ko. toog na fii ngeen dégg ko. mu ne. mu ne. ñaanal leen ma may taalibe. ñaanal leen ma taalibe. ñun ñoo xamut luy taalibe. ñun ñoo xamut luy taalibe. moom mi moom bàyyi wax ne. moom mi bàyyi wax ne. moo ne ci bopp taalibe yi. mu ne nañ ko ñaanal muy taalibe. mu ne nañ ko ñaanal muy taalibe. sëriñam wax ne. sëriñam wax ne. sëriñ Mbay moom taalibe. sëriñ mii taalibe la. ñun suñ bëggee xéwénal. ñun suñ bëggee xéwénal. nañ koy roy. nañ koy roy. yal nañu yàlla may loolu yaa rabbi ne mu ñuy xoo ne ci boppam lay dalee ci taalibe yi ci taalibe yi ci muqaddam yi ci lu nekk ñu ngi koy def fi ne nekk ñu ngi koy def fi mu ne te moom xam na ne demeewut noonu te moom xam na ne demeewut noonu sànni leen li ngeen di def gannaaw gannaaw. sànni li ngeen di def ci seen gannaaw a gannaaw. benn bés. ne benn bés. yónent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. dafa yónni benn saaba. dafa jox ko laaya asaka. ne mu dem jëli asaka. mu dem jëli asaka. ci ab dëkk. mu dem. ca dëkk ba. ñu jox ko asaka. ñu jox ko azaka baax baaxe ko baaxe ko maanaam may ko dara maanaam may ko dara mu ñëw mu ñëw xam naa dafa baax xam na dafa baax mu ne yónente sallallahu wa sallam mu ne yónente sallallahu alayhi wa sallam lii yow lañ ko jox lii yow lañ ko jox man lañ ko jox lii man lañ ko jox yónente ne bi yonent bi ne bilaal hooteel dem ci jàkka ja dem ci jàkka ja bilaal hoote noddu ñépp ñëw mu ne yónni naa benn waay mu ne yónni naa benn waay asaka asaka mu dem dikk ne ma lii yow lañ ko jox lii man lañ ko jox mu dem dikk ne ko lii yow lañ ko jox lii man lañ ko jox ku fi toogoon sa kër ku ku fi toogoon sa kër ndey ak sa baay. ndax dañ la fa fekk di la jox loolu. ndax yow danañ la fa fekk di la jox loolu. gannaaw tey. gannaaw si tey. bu ma yónneeti kenn muy def loolu. gis naa ko ci jamono bi. gi sëriñ bi ne gis na ko nag ci jamono jii. gis naa ci jamono gis na ci jamono jii. koo xam ne. koo xam ne. dafa tudd mu xaddam. dafa tudd mu xaddam. suñ ne siyaara jot na. suñ ne siyaara jot na. mu ubbi compte. mu ubbi compte. xamut kañ la ko ubbi. xamut ñi aju ci moom di jaaree ci compte boobu. moom di jaaree ci compte boobu. ne seen siyaara lañ indi. ne seen siyaara lañ indi. def ci lu bari. def ci lu bari. ci boppam. moom ci boppam. mu dajale loolu. mu dajale loolu. jël ci benn million. jël ci benn million. ne moom la ko joxee. ne moom la ko joxee. addiya ku ji ko xéem. ku ji ko xéem. ku ji ko xéem. ma ne ñu di ko xéem. ñu di ko xéem. dañoo xamut. dañoo xamut. suñ xamoon. suñ xamoon. danañ xam ne lim téye. danañ xam ne lim téye. te Maolana Cheikh Ibrahim moo ko moom. te Maolana Cheikh Ibrahim moo ko moom. bon duñ wax loolu. bon duñ wax loolu. gis naa itam muqaddam yoo xam ne. ne gis na itam muqaddam yoo xam ne. li ma gis ñu di ko def. li mu gis ñu di ko def. bi loolu amee. ne bi loolu xamee. muqaddam boobu. ne muqaddam boobu. àgg na ci xewaat yi. àgg na ci. xewaat yi xewaat yi. ñàkk xew. ñàkk xew. taalibe yi topp ko. taalibe yi topp ko. ñu di ko sikkaral. ñu di ko sikkaral ci biir medina ci biir medina dafa xamut mosuma gis sëriñ mbay def ko ne mosta gis sëñ sëriñ mbay def ko mosuma gis sëriñ aliou def ko mu ne mosta gis sëriñ aliou def ko mu ne mosta gis seex omar touré def ko mu ne mosta gis seex ibra fall def ko mu ne mosta gis waa Taïba ña ngeen def ko mu ne mos a gis sëñ Ousmane Ndiaye def ko kenn ci muqaddam yi mu ne kenn ci muqaddam yi bàyyi mos a def loolu moom mu ñëw mu ñëw fii ci dëkk bi taalibe yi topp ko di ko sikkaral teg ci di ko sikkaral teg ci dafa xamut bu xamoon ne du ko def koy laaxe biir ne mu ngi koy laaxe biir waxoon naa waxoon na fii ne xéeg janji terewut a xam mbayeef xéeg janji terewut a xam mbayeef déeg janji bàyyi ba jub jànj bàyyi ba jub janji wër ko terewut nga xam mbayeef terewut nga xam mbayeef péyëb baay ko bàyyi péyëb baay bii wóccee leen ko bàyyi. du mu xadam. du mu xadam. ak ku mën a dox. ak leen ko Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. ñun ñëpp nañ ñun ñëpp nañ ko ko wóccee. bu kenn xam programme. bu kenn xam programme. oote. oote. ñu di la defal programme ci Medina. ne moom day du ko def. Cheikh Serigne Mbaye Niass du ko def. saa muqaddam yu mag yi kenn mosu yu mag yi kenn mosu koo def. baleen baleen loolu. Medina itam. ne Medina itam. mooy suñ dëkkuwaay. mooy suñ dëkkuwaay. suñ lépp fi la nekk. la ne. fi la barke bi la barke bi ne. fi la ndigal li nekk. fi la ndigal li ne. fi la ngërëm li nekk. fi la ngërëm li yi nekk. fi la xéegukaay yi ne. fi la jégukaay yi nekk. fi la jégukaay yi ne. jege. fi la jegeekaay yi nekk. ngeen xam loolu. ngeen xam loolu. yàlla ne. moom nag yàlla la koy ñaan fi mu ne. may jaral jàng téeméeri kaamil. ne daf koy jaral mu jàng téeméeri kaamil. mu wax yàlla ne ko. wax yàlla ne ko. na taalibe yëpp dellu si Medina. na taalibe yëpp dellu si Medina. ñu bàyyi li ñuy def. ñu bàyyi li ñuy def. bàyyi li ñuy gént. bàyyi li ñuy gént. bàyyi foog. bàyyi li ñuy foog. topp ci bàyyi. topp ci bàyyi. boo leen ko defee. boo leen dana jëriñ. moom rek nag moo ne moom rek nag moo xam yoon wi. bàyyi leen li ngeen di def. bàyyi leen kaay leen ñu topp bàyyi. ne moom loolu la xam. mu ne bi bàyyi bëggee ñëw kër ma jabal. ne wax na ko daaw fii. daf ma ne. daf ko ne. maa fi ñëw mu ma. ne moo fi ñëwoon mu ne ko. demal nga nga ne sëriñ Aliou ne ko. mu jàpp bés ñu mu jàpp bés ñu dem kër ma jebel. ñu dem ma ci sëriñ Aliou. dem ci sëriñ wax ko ko. mu jàpp jàpp bés. ma ñëw ne ko mu ñëw ne ko bés sàngam la. nga ne ko. mu ne ko demal nga ne ko. boobu bés du bésab taalibe. booba bés du bésab taalibe. na jàpp àllarba. na jàpp àllarba. sëriñ Aliou nangu. sëriñ Aliou nangu. ba àllarba ñëw. ba àllarba ñëw. moom mu jóg ànd ak sëriñ Aliou. ak taalibe yi. ak ak Aliou Diagne. ànd joxe ndigal. ñëw keroog la jox ndigal. ko jox ndigal. daal ba ñu bëri. ñaanal ñaanal ko. waaye xam nga lu tax. Seex Sëriñ Bay Ñas. moom la jox ma ndigal. jox ko ndigal. looloo tax li ngeen di dégg mu di ko wax. looloo tax li ngeen di dégg mu di ko wax. mu di ko wax. bëgg naa pay bi ñoŋ. ne bëgg na pay bi ñoŋ. bëgg naa ñu wëccee ko baay. bëgg na ñu wëccee ko baay. bëgg naa ñëpp màggal baay. bëgg na ñëpp màggal baay. bëgg na ñu denc li ñuy wax. bëgg na ñu denc li ñuy wax. ñu denc gént. bëgg na ñu denc li ñuy gént. bëgg na ñuy li ñuy foog te xamut. bëgg na ñuy dindi li ñuy foog te xamut. moo fi nekk. Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moo fi nekk. ak ku mën a doon. ak ku topp ko. ñu topp la. toppoo ko. soof nit ñi. soof ñuy dénk. ne mu ngi jeexale waxam ji ci ndax fi mu ne màggat la ndax fi mu ne màggat la wax ji sax mu may sonal ne wax ji sax mu ngi koy sonal waaye waaye olof wax na benn baat olof wax na benn baat maa bëgg ngeen déglu mu ne dafa bëgg ngeen déglu ko olof mu ne olof mu ne nit soo ko negee ca lam bëgg nit soo ko negee ca lam bëgg nit du fekk. dof mo la fay fekk. lolu moy la fay man dama bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim. moom dafa bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim. ba xamuma leneen lu mooy moom. ba xamut leneen lu moy mom dégluwuma leneen lu mooy moom. dégluwut leneen lu moy mom topoto wut leneen lu dut mom soo ci soo jéggalut nak soo ko jéggalut nag. jàppee ko loolu. jàppee ko loolu. dañuy wax ne dof la fekk mbëggeel rek la ñëw leen ñu topp ci baay buñ ko defut dañuy tarde ne mu ngi fi doon wax sax ne baay dafa toog ak ñoom fii ci Medina wax ne na ngeen taxawal ansaaru diin ngeen def te na ngeen def congrès par at. man de maa ngi wax su ne moom day mu ngi wax ne su sañoon. 22 janvier bi mu bindoon lettre. 22. 22 Saabaan. 20. 22 Saabaan. 22 Saabaan bi mu bindoon lettre bi. su ma bu sañoon ñu def ci congrès bi. moom la taalibe yëpp di déglu. la taalibe yëpp di déglu. te moo ëpp mboolem nguur yi. te moo ëpp mboolem nguur yi. nit koo xam ne. téeméeri million mu ngi la topp. mu ngi la topp. ak juróom-ñetti fukk. ak juróom-ñetti fukk. bindkat yi wax nañ loolu. bindkat yi wax nañ loolu. ku nekk ci sa gannaaw. ñi nekk ci sa gannaaw. nekk ci sa gannaaw. duñ nekk ci sa gannaaw. kuñ nekk ci sa gannaaw. mën ngaa doylu. te man de na. te moom de dafa fasoone. ne fi mos a wax ku fi mos wax nag ñaar téeméer. ci moom nga ko déggee. fanweeri at ak juróom. fanweeri at ak juróom. maa ngi wax ne nañ def li Baye wax. mu ngi wax ne nañ def li Baye wax. bind na téere. wax na def na lu ne. te li ko wóor. ñetti weer ci kanam nii. suñ defoon loolu Baye wax. suñ yi dajee. ñu fal benn waay. ne mooy président bi. ne kii mooy secrétaire bi. ñaar ñi ñoo leen di dimbale. ñu ubbi benn compte. ñu ubbi benn compte. benn bu nekk. benn bopp taalibe bu nekk. joxe ñaari téeméer. ñu jàpp congrès bi. bi. ñëw. balaay ñëw. téeméeri milliard dana fi daje. téeméeri milliard amul benn sikk ci loolu. amul ñuy ñaan. mu ne nag ñaanu ko fi mu ne ñaanu ko kenn kat. kenn. waxut kenn. dimbali ko kenn. ne dimbali ko wuta kenn. sama bëgg-bëgg ci baay. bëgg-bëggam ci baay. sama ngëm ci baay. ngëm ci baay. maqaamam ci baay. ak darajaam. ak jege yàllaam. moo tax may wax. moo tax muy wax. yàlla yow ne yàlla yow laay ñaan. suñu sëriñ a ngi. jox nañu ndigal. jox nañu ndigal. bind na ko. bind na ko. wax nañ ko ci xolof. wax nañ ko ci xolof. man maa ci boppu taalibe yi. ne moom mu ngi ci boppu taalibe yi. ci ndigalal baay. ci ndigalal baay. te ñëpp xam nañ loolu. te ñëpp xam nañ loolu. suñu ko defeen. suñu ko defoon. téeméeri milliard léegi daje. téeméeri milliard léegi daje. fu mu koy defoon. amul fuñ koy def bon. xaw ma fuñ koy def bon. xaw ma fuñ koy def bon. amul sikk ne. amul sikk ne. loolu dana fi daje. te danañ màggal ki ko def. te danañ màggal ki ko def. te danañ ko bëgg. te danañ ko bëgg. te danañ ko hóolu. te danañ ko hóolu. te danañ ko topp. te danañ ko topp. benn pal mës a toll noonu. benn. pal pal. mës a toll noonu. mës a toll noonu. jiitu. jiitu. téeméeri million nekk ci sa gannaaw. téeméeri million nekk ci sa gannaaw. ak juróom-ñett ak juróom-ñetti fukk. loo wax ñu def ko. loo wax ñu def ko. loo bëgg xam. loo bëgg mu xam. koo jub mu mu mu daanu ci suuf. koo jub mu daanu ci suuf. kooku bàyyi rek moo ko xam. yéen talibé yi. yéen talibé yi. nit ak jinne laa wax. nit ak jinne ne moom la wax. ndax bëri talibé yi. ndax bëri talibé yi. xamuñu bàyyi. xamuñ bàyyi. suñ ko xamoon. suñ ko xamoon. maa ngi gën ci yàlla ne. ne gën ci yàlla duñ génn Medina. duñ génn Medina. te dara du manqué. te dara du manqué. ñëpp danañ leen topp. ñëpp danañ leen topp. nit ak jinne. nit ak jinne. bàyyi maag yent yent. bàyyi maag ak jamaat. ak jamaan. ñëppay dikk. ñëppay dikk. ñëppay dikk. ñëppay dikk. ñëppay dikk. ñëppay eh, ngi seen itam ki nga xam ne. moom lañ war a jox kàddu léegi di ki nga xam ne mooy wax ci turu Taïba Niangène ci turu waa kër Maabdu ci turu euh, ñooñu ñu xam nga xam ne doy na rek baay wax bés suñ bàjjen Roqiyata baay ne ko man maa ngi doxantu ci gaana waaye damaa dem ba mu yàgg mu mel ni yëgatuma suma tànk yaa ngi laal suuf mu ne ko abbaay loolu lan la mu ne ko dama gis lu war a mat junney xale ñi ma wër naan alfu salaati ma salaami cheikh moustapha ñang doomi suñ baay alhaaji omar ñang moom lañuy jox kàddu gi euh, yaakaar naa ne maa ngi dégg ci tàkkusaan imaam naan ma oustaz Barham Diop ku fonkoon ziyaara la bés dafa waxtaan ci baay dafa waxtaan ci baay ba ñëpp kontaan bay Omar daldi ko joxar bi ne ko ne ko Barham kontaan ci moom loolu mu ne ko may ma ma nuyu la mag ñëpp joxoñ nañ baay waaye musuma dégg ku ko joxoñee ne ko yow yaay ki oote yaay ki uyute yaay pénc mi kon Cheikh Moustapha kàddu ci ñun ci mboolem jullit rawatina toppam Mawlana Cheikh Hadj Ibrahim radiyallahu taala anhu muy bés boo xam ne kado la bu ñu yàlla may ndax ki ñu gën a fonk gannaaw yàlla ak yonentam moom lañ jagle bés bi ñuy wax ci turu xalifa Ahmad Bukaar Ñang bu Tayba Ñangeen ndax kilima bi ay baayam la ko bàyyi mayoon ay xulafaawam ci gannaawam ñëw delloo ko jaboot gi ba tey moom mi nga xam ne moo nekk ci kanam topp ma foofa ca tey ba ngeen moo waroon a toog fii joxe kàddu yi waaye jox nañu ndigal comme ni ma ko waxee woon daaw بن الله ترسخ خليفه بي مولانا الشيخ محمد التجاني يلا يلا قدل فلم نكو ليتر مويل لولو لول رك موتاخ ما سانيا توك في نما مي جيما واخ نخ لي ورا واخ ما ام جرين ñi ko war a wax xam nañ leen kenn ci ñoom suñ nijaay alxalifa xaaj barham ñas yàlla yàlla guddal fanam yokk wéram mu ne bu mu alaaji ahmadu moomu ahmad bukaar buñ ñëwee nañ wax sëriñ bi ne ko te sëriñ bi mooy el xalifa ahmad cheikh ahmad tijaani atala allahu baqaa ak ay rakkam te rakkam yooyu cheikh mohamadul maahi jiite leen moog suñu nijaay baaba lemin ak suñu yaay Cheikh Mouhamadul Makki ak mboolem muqaddam yu tedd yi fi toog ci seen bopp ba suñu ilimaan Cheikh Tidiane Ali Cissé ñu ngi koy jagleel ngërmaane waxoon naa ko ci at yi weesu xabtal yi nga xam ne dana koy xabtal toppam baay mi pour ñuy liggéey di liggéey sëriñ bi njëriñ li yëpp ci ñun lay dellu buñ ko defee waaye am na mbaax ak ñu ñu tonoxoo ci moo tax du noppalu lay la naxaar di ñi soññi ci liggéey bu ni mel alaaji ahmadu ne na suñ ñëwee nañ wax sëriñ bi ne ko ñu ngi toroxlu ci kanamam ñu ngi nangu suñ taalibe comme nañ ko daan nangoo ñu ngi koy wax ne ko fu mu joxoñ insha allahu rek fa la ñuy aw mu ne ñu ngi sant yàlla ci Baye Niass radiallahu taala anhu di sant yàlla ci ay waajuri Baye Niass alxaaji Abdoulaye al di sant yàlla ci waajuram alxaaji abdullahi moom nga xam ne al mujahidul kabir kon alxaaji abdullahi kuy wax ci moom ak kum man di doon na nga xam ci ki ngay wax kan la yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla ñu taasu ci barkeem kooku nag la yàlla tànn مولانا مولانا الشيخ حاج ابراهيم نص بروم بس بي دنج كاي وخ تي بود سنت يالا نخ يالا كو مكو نيك داف كاي تانال اي واجور يو باخ دي نين بو سيرو نم كو واخي لم تزل في ضمائر الكون تخصار لك الامهات والاباء يالا دنجو دي تانال يننتبي ay baay yu baax ak i ndey yu baax bam ne nag bam ne maa ngi nag ñëw na képp ko mu tànnaat tam gannaaw gi daf lay tànnal ay ndey yu baax ak baay yu baax doy na sëkk xaaj Abdoulaye mu wax ne baay wax ne ñun ak liñ fi jeexital xasana la min xasanaati xaaj Abdoulaye kon kay mom yàlla tànnal nako ay baay yu bax ak i ndey yu bax yaayam mom moulana Cheikh Ibrahim moy ki ngeen xam te Seydi Ali wax ñu ko ci Kashful Albas te muqaddima ba le moy ki nga xam ne bi yàlla defé ci moom leer ak alxaaji Ibrahima Ñas googu gént na wër daanu ci biram bam wax ko alxaaji Abdoulaye mu ne ko nu ko nëbbu koku moy Mawlana nga xamne di yàlla tànnale woon bi ay baay yu baax ak ndey yu baax noonu ko ko tànnale moo tax li mu am yëpp si ngëneeleel yàlla yàlla may ko ko ñu ngi sant yàlla ci sëriñ bi gëm ko ak yokk rek la comme ni ko suñu xalifa bi Ahmad Bukaar waxee tey ci ngoon rek ñu ngi bàyyi ñu ngi eesal suñu topp ci moom léppam xéewal la léppam ngëneel la te wax ji nga xam ne danañ koy faral di baamu lu bari ne olof dafay wax ne ku ne jubbu wi ko fal bu ko watee rek fooleeku ñun ci bàyyi lañ faloo bàyyi ñu yëkkati rawatina nag waa tey ba ndax ñoom ci Alaaji Abdoulaye lañ jàppoon bi bàyyi ñëwee indi lu fi kenn indiwut ñu ne ko aha ñu ngi nii kon bàyyi lañ xam xaaj Abdoulaye lañ xam te ñu ngi tiitaroo loolu te kenn tane bu ñu fi nag bàyyi waxoon na xaaj Omar Diop la ko man rek maa ma nekk ndax fekkoon na maam yi ñu ci bëri jàng amoon tariqa waaye bay indi loo xam ne mooy fayda bi ñun naan ci gis ne liñ naan nii keneen indiwu ko woon ñu xommatu ñeel ko moo tax suñ maam xaalima abdu ne anaxtu raxli jalaaba cheikhi rajawtu minhu dural maani dural maani mooy maarifa waaw bàyyi géej boobu bu ji naanal moo tax ñu bugg ko moo tax ñu nangoo nekk taalibeem ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu لي واخي تاريخ بوبو محمد محمود تيشيتي الصغير تيشيتي ليرال نينين نك نينين تي ني دكول في تي ريو بي بلون نكو تاريخ باي بو ياغ اماتو لي تي گيس دمال تي من اخبار الشيخ ابراهيم باي ودا ما تي جوباي باجي صاح كانو ييك فنتر ييك نيم تولو بونتي صاح بايوكو امو دار باي تاريخ باي تاريخ مدينه moo amul lu bees ku ciy bind rek boo ñëwee na nga laaj ñi nga xam ne ñoo nekk fii ñu wax la li fi am te bu ma waxee ñi nekk fii mooy mag ñi fi nekk ak boroom xam-xam yi ak muqaddam yi nga xam ne ñoo bëggu baay ba xam ko boo laaje laajee ci jafe-jafe yooyu ak gàkk-gàkk yooyu noonu ñu ngi tëjee suñu wax rek ziyaare di jaay suñu sëriñ Cheikh Mouhamadul Mahi موكم محمد الامين ابراهيم ياس اب سيني شيخ محمد المكي دي نيو تي مقدمي حاج المشري كبير دمي توك سيني دي نيو سيني شيخ اندور شيخ عمر سيدي مولانا شيخ احمد سجاني ميغا خامل وقتو بو غيسي رك بو ناخ بي جان في تي دار القران دي لك تي نيك باي جيكو خاتال في تي نيغم بي مو سيبورتي نيو تي لولو واخسو غيسه رك لولا فاتلكو موي فاتلي باي باي جيل سي ياي دي يوبو مكه تي اجا موي سيدنا ابراهيم ياس اك سيدنا ابو الخير نين ني نيك اي خالي باي يرم ني ني فاي باي بيو بالي moo tax buñ ko gisee rek di fàttaliku lu bëri ci suñ madina ak démb ñu ngi koy gërëm ñu ngi sant yàlla ci toog biñ toog ak moom fii nii ma ngi fàttaliku buñ duggaan ci suñ néeg maam man bu suma yëngatu bëree bàyyi ne ma alaaji tappale looy def nii alaaji tappale la ma doon wax ndax bi ñuy dem màkka mënuñ dara dañuy yóbbaale rek jeexawuñ benn ponk foofa moo tax mu ne tuddee woon ñu xal yi tappale yow toll ci jamono boo xam ne loo fàttaliku ci bàyyi rek dafay neex moo tax ñu nettali xissa boobu latifu salliyan ala almuxtaari wa alihi wa sahbihi al axyaari xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim asalaamaaleykum jot na kal aada nam daan demee teew na ci jotaay bi borom chamir lil maali xaajul mishri maa seen itam Cheikh Kabir waa kër Cheikh Thierno Assane Deme agsi nañ ci kalimatu al imaamul akbar porte parole Cheikh Mahi Cissé wax na fii ci kanam xalifa bi ci heure bi daaw ne ñi ngi ndokkeel imaam te mi ngi koy wax ci turu xalifa bi mi ngi toog ci hitte ju rëy jëm def buurloo taalibe yi ba ziyaara bi agsi mu agsi tey moom nag moo ooxoon taalibe yi taalibe yi oysi nañ ni taalibe yi oysee seen sëriñ moo ko xam moo koy wax sëriñ bi boole kook mbooleem aajo yi taalibe yi kon seydil imaamul akbar kàddu gàngoog sant yàlla. mbokk yi imam na alhamdulilah mu ngi sant yàlla. ci xéewal gu màgg gii mu ñu may tey. ne ci xéewal gu màgg gi mu ñu may tey. muy xéewal toog ngir ziyaara Mawlana Cheikh Ibrahim muy xéewali toog ci ziyaara. ngir ziyaara Mawlana Cheikh Ibrahim. رضي الله عنه moom mu nga xam ne lépp lu baax su matee rek moom la neex te ci mbaaxam la yàlla moom nga xam ne lépp lu baax su matee rek moom la neex ndax ci pour ñu ñëw ziyaara pour ñu ñëw si nañ leen ne leen waxtu yi ñu ko doon def jot na fàttalil nañ leen ne leen waxtu wiñ ko doon def jot na nañ ñëw ziyaara si ngir esal seen couleur ak seen mbëggeel yi ak seen kàndoo gi ci baay nañ ñëw ziyaara si ngir eesal seen kóllëre ak seen mbëggeel ak seen kàndoo gi ci baay ñoom ñëpp ñu ñëw uy si ku ci uy suur rek ngànt mu la tee ku ci uy si rek ngant moo la téye xaddam yi taxaw nañ ci seen taalibe yi góorgóorlu ànd ak ñoom ñëw taxaw nañ ci seen taalibe yi góorgóorlu ñu ànd ak ñoom ngir ñëw uy si oote boobu ut si wuñ dara lu mooy yàlla ak baay mi nga xam ne ci lañ leen yàlla ak baay mi nga xam ne ci lañ leen xoo ba mbëggeel gi ñu oote ci moom yëpp dëggal nañ ko ci jëf ba ñëwee itam mbëggeel gi ñu oote ci moom yëpp dëggal nañ ko ci jëf ndax nit su fekkee dafa baaxoo woon di def lu baax ndax nit ki su fekkee ne dafa baaxoo woon di def lu baax te waxtu wuñ ko ci ooyatee rek bu ñëwee lu baax loolu yokku te waxtu ko ci ooyatee rek bu ñëwee lu baax loolu yokku kon boo xëy na bëgg nañu gëm na war nañ ko gëm kon bu waxee ne bëgg nañ war nañ ko gëm bëgg nañ ko taalibe bàyyi day bëgg nañ ko te buñ leen ci ooyee danañ uyu te buñ leen ci ooyee danañ uyu buñ ci def ñu def buñ leen ci def looyee ñu def man nag li ma nuyoo kilifa yi toog imam ne moom nag li muy wax gannaaw bu nuyoo kilifa yi toog si ak wér mu ngi nuyu xalifa bi ci boppam di ko ñaanal yàlla mu dellusi ak wér ak mbooleem ñi mu àndal ñëpp ak te fekk ñu ci jàmm ñun ñëpp te fekk ci jàmm ñun ñëpp waxante nañ ci téléphone sànq ne waxante nañ ci téléphone sànq moom itam mu ngi nuyoo mu ngi gërëm moom itam mu ngi nuyoo mu ngi gërëm ndax àddina bi fi ndax àddina bi fi mu ne dara umpewut nit fu mën di nekk rek nit fum mën di nekk rek yëngatu bu xew yëngatu xew da nga xam dana nga xam ndax lu baax la wala leneen la ndax lu baax la wala leneen la gërëm na taalibe yi ñaanal na leen yàlla na gërëm na taalibe yi ñaanal na leen yàlla gërëm na itam seen taxawaay gërëm na itam seen taxawaay wax na ma itam ne naa leen ko jotal wax na ko itam ne na leen ko jotal gannaawam mu ngi nuyu ki nga xam ne moo ko wuutu fii ci toogaayam fii muy Cheikh Mouhamadul Mahi di ko ñaanal yàlla moom itam yàlla yàggal ko fi. di ko ñaanal yàlla moom itam yàlla yàggal ko fi. yàggal ko fi ak wér. yàggal ko fi ak wér. yàggal ko fi ak man. yàggal ko fi ak man yaara bi. di nuyu itam Cheikh Mouhamadul Amin. di nuyu tamit Cheikh Mouhamadul Amin. ñaan yàlla moom itam mu yàgg fi lool. di ñaan yàlla moom itam mu yàgg fi lool. يغ في اك وير يغ في اك من يا ربي شيخ محمد الماكي اك سين راكي في نك ييب دي هيت شيخ محمد الماكي اك سين راكي في نك ييب تام شريف ميغا خامني موغي تاخاو تي نياري دغو دي نوي هيتام شريف ميغا خامني موغي تاخاو تي نياري دغو شريف شيخ عمر موي شريف شيخ عمر شريف شيخ عمر ngi ñaanal ñoom ñëpp imam na mu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp yàlla yàggal leen fii seen nekk fi leer la pour fayda bi ndax seen nekk fi leer la pour fayda bi njëriñ la itam pour fayda bi njëriñ la itam pour fayda bi njëriñ la itam pour madina njëriñ la itam pour madina njëriñ la itam ci képp koo xam ne yaa ngi ci àddina bi tey askanoo madina njëriñ la itam pour képp koo xam ne yaa ngi ci àddina bii tey askanoo madina gannaaw buñ leen nuyoo gannaaw buñ leen nuyoo ñaanal leen yàlla ñaanal leen yàlla daanaka wax amut daanaka wax amut wax bi am mooy lan wax bi am mooy lan oo nañ nit ñi nañ ñëw ziyaara si oo nañ nit ñi nañ ñëw ziyaara si def nañ ko ñëw nañ def nañ ko wax nañ leen ne nañ ñëw uy si wax nañ leen ne nañ ñëw uy si ci seen xol ak seen jëmm ak seen jëf ci seen xol ak seen jëmm ak seen jëf loolu yëpp dëggal nañ ko ci seen bopp. loolu yëpp dëggal nañ ko ci seen bopp. kon duñ mën lu may wax. kon duñ mën lu may wax. xalifa bi buñ ko jotee. xalifa bi buñ ko jotee. nekkoon na leen ñaanal yàlla. nekkoon na leen ñaanal yàlla. ñii di ay kuutalam fii itam. ñii di ay kuutalam fii itam. ñu wax leen ne taxawaay yi rafet na lool. ñu wax leen ne taxawaay yi rafet na lool. képp ku doon jëf rek. képp ku doon jëf rek. fexe ba wax ne. fexe nga ba wax ne. da nga jëf lu ëpp li nga defoon. da nga jëf lu ëpp li nga defoon. loolu. te loolu. ku ko def rek war nañ laa sant war nañ laa ñaanal yàlla. ku def rek war nañ laa sant war nañ laa ñaanal yàlla. ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mi nga xam ne mooy royukaay bu mag bi. mi nga xam ne mooy royukaay bu mag bi. bu oote dundale ci yàlla. bu oote dundale ci yàlla. ñi ci daan jiitu mel ni Seydina Ousmane Ibn Affan. ñi ci daan jiitu mel ni Seydina Ousmane Ibn Affan. daan na leen jagleel yoo xam ne. daan na leen jagleel yoo xam ne. uy ji bañ uy ji ci seen jëm ak seen alal moo leen ko may. uy ji bañ uy ji ci seen jëmm ak seen alal moo leen ko may. am na guddi sax goo xam ne gannaaw bu mu jullee ba ba ñuy jullee fajar ne na ñaanalut kenn ku may Ousmane. am na guddi goo xam ne sax gannaaw bañ jullee gee ba ni ñuy na ñaanalul kenn ku dul Ousmane. te Baye bind na. te Baye radiyallahu anhu bind na. bind lu bëri bàyyi fi. dafa bind lu bëri ba fi. wax lu bëri itam bàyyi fi. wax lu bëri itam bàyyi fi. am na luñ ci gis. te am na luñ ci gis. xam nañ bëgg-bëggam. xam nañ bëgg-bëggam. ndax gis naa mu bind leetar Seydi Aliou di ko wax ne ko. ndax ne gis na mu bind leetar Seydi Aliou di ko wax ne ko. nang ma bind wax ma ñi nga xam ne dañoo dañuy góorgóorlu ci sama mbir nang bind wax ma ñi nga xam ne dañuy góorgóorlu ci sama mbir pour su ma wéeteeg sama borom di leen ñaanal ñaani xas pour su ma wéeteeg sama borom di leen ñaanal ñaani xaas kon nag ñi koy def fi mu nekk nii kon nag ñi koy def fi mu nekk nii foog ñu gërëm leen foog ñu gërëm leen foog ñu ñaanal leen foog ñu ñaanal leen yàlla rek moo tax ñuy def fi mu nekk ndax yàlla rek moo tax ñuy def fi nekk yàlla gërëm seen jëf yal na yàlla gërëm seen jëf yaa bi yàlla nangu seen ziyaara yal na yàlla nangu seen ziyaara yaara bi. yal nañ fi tasahaat ay at yu bëri ak ñoom. yal nañ fi tasahaat ay at yu bëri ak ñoom. ngeen di yokku. ngeen di yokk seen jëf di yokku. seeni jëf di yokk gudd fan ak yàgg fi. gudd fan ak yàgg fi. li muy jëriñ yëpp mooy yu baax yi ngay def gën a bari rek. li muy jëriñ yëpp mooy yu baax yi ngay def di gën a bëri rek. buñ fi yàgge bu fi yàggee. di gën a liggéeyal baay. di gën a liggéeyal baay. liggéeyal tariqa bi di liggéeyal diine ji. di liggéeyal tariqa bi di liggéeyal diine ji. su boobaa yàgg fi am na njëriñ. su boobaa yàgg fi am na njëriñ. taalibe baay yii de seen yàgg ci àddina am na njëriñ. taalibe baay yii de seen yàgg ci àddina am na njëriñ. ñoo xam ne ci alamul arwaax la baay ñaan ne na ko yàlla tànnal. ñoo xam ne ci alamul arwaax la baay ñaan ne nañ ko tànnal. na ko yàlla tànnal. na ko yàlla tànnal. ay àndandoor yu gën. ay àndandoor yu gën. ñooñu ñëw nekk ñii. ñooñu ñëw nekk ñii. ak ñi fi bëgg a teew te mënuñoo teew. ak ñi fi bëgg a teew te mënuñoo teew. man de ma wax lu may gërëm leen ñaanal leen. imam ne day du wax lu may gërëm leen ñaanal leen yàlla. ñaanal leen itam yàlla mën loo leen. ñaanal leen itam yàlla mën loo leen. xam ne waxtu wuñ leen ooyee. ba nga xam ne waxtu wuñ leen ooyee. ci baay. ci baay. ñu mën. ñu man yal na leen yàlla defal loolu. yal na leen yàlla defal loolu yaa rabbi. yal na ñëpp dellu ci seen kër yi ci jàmm. yal na ñëpp dellu ci seen kër yi ci jàmm. ànd ak ngërëmam. ànd ak ngërëmam. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf. allo allo allo allo allo jërëjëf alimaamul akbar oo nañ taalibe yi oysi nañ wane nañ mbëggeel jëf nañ ko biñ ñëwee ci yow lañ jaar yaa ko seede sëriñ bi sayidi cheikh mohamadul maahi ibrahim ñas naayibul xalifa te matee ko wone ko bu baax itam te amuñ sikki ne xalifa bi gërëm na keroog bi nga xamee ne fan yu mujj yi rek bi muftil su ñëwee kon taalibe yi ñëw nañ indi seeni aajo comme ni ko imaam waxee liñ leen oowoon ci baay def nañ ko ci mbëggeel ak sellal kon kàddu gi dafa jëm ci xaaj wulul mishri comme ni ko kilifa jotaay bi waxee kon duñ man lu mooy jege ko mu ne mi ngi joxe ngànt di doyloo seen kàddu Abdoul waaw moom dafa joxe ngànt wasalaatu wasalaamu ala rasulillah nuyu mbooloo mu tedd mi daje fi yépp ci bés bu bi ci place bu bi di déglu yi nga xam ne wax na yépp ku ci nekk sa wax yi nga wax dafa génne urus urusi wax njëriñi wax li ñu ci wax yépp nañ ko ci yi nga ne nañ ci bi mooy as-sidqu wal ixlaas wal wafa dëggu naa ci li ma oote ci sama bopp te dinaa ko matal ci sama kemb kàttan te dinaa ci sellal sàkkuwuma ci dara lu muy ngërmande yàlla moo tax yàlla nangu na seen jotaay bi ndax déglu leen laaya bi nga xam ne moom la leen medina teeroo te xale bi jàngal ñu ko alam tara an allaha anzala min alsamaai maan fa axrajna bihi samaratin muxtalifan alwanuha wa min aljibali judadun biidun wa xumrun muxtalifun alwanuha wa garabibu suudun wa min annaasi waddawaabi wal anaami muxtalifun alwanu kazalika innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama yàlla waxee ñu noonu wàcce na ci asamaan ndox moo xam ne wàcce na ko ci suuf ngir mu saxal ay meññeet yoo xam ne yu uute la waaye noonu mu wàccee ndox moomu mu bàyyeekoo ngir génneel ñu meññeet ñu uute noonu la ñu wàccelee ay mbuut mu jóge ci asamaan yoo xam ne itam saxal na meññeet moo xam ne meññeet mu uute la te meññeet mu sax moomu nga xam ne mi ngi bàyyeekoo ci mbuut yu kawe yooyu mooy ñii daje fii tey te kenn ku nekk ci ñoom mën ngaa jëmmal ci sa kenn yow sa bopp rek xeetu yonent yàlla Muhammad yëpp ndax xeetu yonent yàlla Muhammad yëpp li ñu leen ñaan ñu meloo ko ñoom ñëpp meloo nañ ko ci seen uysi bi ci seen jotaay bi ci seen yaakaar yi ñu am ak itam ci seen xadu ci seen bopp ak seen bakkan ne ca kanam rek ca kanam rek dara mënuñoo delloo gannaaw yàlla nañu ko yàlla may yàlla na ko yàlla may ñëpp ay mbóot yu sell wàcc nañ jógee asamaan wàcc ci ay tànneef du ci du du ci ku nekk la jëm waaye ci ay tànneef lay wàcc ñoo xam ne yàlla jox na leen cër yàlla cëral na leen seen cër yu mag yooyu euh, ñoom itamit am nañ ci digganteem ak yàlla kóllëre goo xam ne ak sellal goo xam ne loolu yàlla wàcce ci ñoom amuñ benn sikku ne dañ koy tasaare ci biir nit ñi ñu tasaare ko tasaare boo xam ne ku nekk ci mbooloo mii rek yënga ci sa bopp ne man maay maa saxee ci mbóot moomu nga xam ne moom la yàlla wàcc mu jógee asamaan te ku nekk yëngi ko ci sa bopp ku nekk kontaan nga ku nekk xam nga ne yaa ngi toog ci jotaay boo xam ne dara jógewu fi lu dut ne euh, euh, ngëneel lu dut ne tono lu dut ne dooleeku moom rek moo la fi jële ndax laa jë ba muy tëj ma ko tëjee ne tijaaratan lan muy wax nuy wafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi noonu la laay ja tëjee ba tey itam laay jooju mooy diri seen ci ay mbóotam waxtu wu nekk ñu ngi def tijaara suñ diggante ak suñ borom yàlla ak ñuy dolli yàlla ak ñuy may waaye ngëneel goo xam ne itam du ku nekk yaa mun a àgg ci ngëneel googu ndax ahlul xusuusiya rek ñoo mun a am ngëneel googu yàlla na ko yàlla dëggalee ci mbooloo mi yonentu toog na ci biir ay saxaabaam dal na yaa laytani raaytu ahbaab yi aka neexoon ma gis samay soppe ñu ne ko yonentu ñun de ñun duñ say soppe mu ne leen yéen du ngeen samay ay sama soppe mais samay saxaaba ngeen sama soppe yi muy ñii ñëw sama gannaaw bëgg ma ni ngeen ma bëggee ku leen waxoon ne bu ngeen amee àddina li ci biiram joxe ko danga ma gis bon ñoom ñëpp pare nañ pour joxe ko mbooloo moomu ñoo nekk fii tey nii ñoo toog nii ñoom ñëpp li ñu am ci alal génne nañ ko génne nañ seen bopp ñëw fanaan ci mbaar mi ndax lan gëñante ñenoog yàlla Cheikh Ibrahima bëgg nañ la te dinañ ànd ak yow ba ca ba ba sagar xeeñ dinañ ànd ak yow ba sagar xeeñ ànd ànd boobu ànd bu rafet boobu ànd bu dëgg boobu nga xam ne du yow yaa ko tànnal sa bopp mais hibatan min allahi tabaraka wa taala yàlla la ko may ciir yërmandeem yàlla la tànn boole la kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi waaye yàlla la tànn boole la itam min hazihi al ummati al xayra nga nekk xayra xayra aydan fi hazihi al umma nga nekk beneen tànneef fi ci biir xeet woowu loolu itam ba tey ay ngëneel la yoo xam ne boo ko seetee si ñi daje fii yëpp da nga ko gis ndax ñoom ñëpp seen jaayante ak yàlla comme ni ko imaam waxee dëggal nañ ko kaay leen ñu ziyaare baay ñëw nañ indi leen joxe xaalis ñëw nañ ñëw nañ fanaan ci mbaar mi ñëw nañ jeex na lu ci desati anzala min as-samaa'i maa'an فاخرجنا به ثمرات بوكو دافي ثمرات بوبو موي موي نيك ني تا موم لا لين ميرينا تيرو لا يي بوبو موم لا لين ميرينا تيرو بون ما ناي شي اي بوبو ييب دا نين خامني يين ييب دا نين كو نيبي والي ان شاء الله تجاره لن تبور لينوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله لول لا يالله لول موي اي بي موتاخ ميرينا ميغي ميغي ماغي واخ ميرينا مو تيرو تا لا لا لين تيرو وبيلنا لين ييب با بارا نك ubbil leen bunti asamaan ne leen isaadu ubbil na leen afaqul ardi afaqul ardi yëpp itam mi ngi nii ci seen loxo yàlla na ko yàlla dëggal ba ngeen tekki seen loxo ba kenn ku nekk jàpp ko yóbbul ko boppam ndax kenn amut loo maye ku dul yàlla kenn amut loo seddaate ku dul yàlla yàlla rek am lu maye yàlla rek am lu seddaate waaye yàlla moomu am lu maye am lu ñu seddaate moo ñu wax ne alam tara an allah anzala min as-samaa'i maa'an fa axrajna bihi samaratin yëpp mu jëm si ci yéen ba pare tëjee ko lan tabuura tijaaratan lan tabuura li ne wafiyahum ujurahum amul foofu mu ne wa yazidahum min fadlihi ha wa yazidahum min fadlihi loolu yëpp ay ngëneel la yoo xam ne dëgg-dëgg boo amutoon boo amutoon dëggu ak ixlaas ak sidq ak wafa dëgg-dëgg loo mun a am daraja ju mel noonu nga ñëw seppe yi sëriñ seppe yi sëriñ teeroo la alam tara anna allaha anzala min as-samaa'i ma'an fa akhrajna naka noonu comme ni ma ko waxee ay mbóoti yàlla itam yoo xam ne yàlla wàcc na ko mu tukkee ci asamaan ngir gin génne meññet mii meññet mu rafet mii meññet mu rafet mii te wuute xale yaa ngi fi mag ñaa ngi fi góor ñaa ngi fi jigéen ñaa ngi fi ñëpp ñëw nañ ñoom ñëpp ñu ay ay ay meññet ay meññet ndax meññet meññet moo lekk dafa yomb waaye meññet mi nga xam ne nag bala nga koo bala mos di nga am bakkan boo ko fóonee di nga am bët yoo ko gisee da nga am zawq boo ko mën a mosee da nga am yëg boo ko mën a yëgee loolu mooy meññet bi nga xam ne moo nëbbu ci biir laaya ji anzala mina samaa'i maa'an fa axrajnaa bihi samaratin muxtalifan alwaanuha ba nag màng googu ñu màng yëpp yàlla màng googu mu ñu màng tëj ñu ci biir laaya jooju ndax génnuñ laaya jooju ndax loolu rek la نتاجر مع الله تبارك وتعالى مخلصين صادقين وفاء لعهد قطعناه على انفسنا ان نكون لله عبيدا وان نكون للذين يقودوننا الى طريقه الله محبين ومخلصين ها لول تي لا نيك تي لا تي لا نيو داجي تي جوتاي بي تاي كو نيك ci نون كو نيك ci نون urus كو نيك nekk نون اورغا كو نيك ku نون خالصغا ku nekk ci ñun àddina bu mat sëkk nga ku nekk ci ñun attan nga àddina bi te loolu mi ngi bàyyi ko ci sirru anzala min as-samaa'i ma'an fa akhrajna anzala min as-samaa'i ma'an fa akhrajna naka mu génne ay asraar min as-samaa'i ila al-ardi li yukhrijan hadha an-nabat at-tayyib ha al-mukhtalif alwanuha yëpp mi ngi ni toog daje yàlla mi ñu may loolu sedduñu ko ci mbaaxam mu jarad mbaaxam ñu ngi ñaan yàlla ku nekk ci ñun ñi toog fii ak ñi fi toogut te bëggoon a ñëw te ñëwuñ te ñoom ñëpp seen xol ngi toog yëpp yàlla nañ yëg mbóot moomu sirru boobu nga xam ne mu ngi bàyyi ko ci yàlla jëm si ci yow directement jëm si ci yow directement ndax yaa ko moom ndax yaa tax yàlla wàcce ko yaa tax yàlla wàcce ndox mi mina samaayi waaye yaa tax yàlla wàcce asraarun mina samaayi te asraar asraaru mina samaayi joxam moo gën a moo gën a kawe Euh, ndox mu wàcc rek saxalal la gerte wala mu saxalal la dugub wala mu saxalal la basi euh, basi bi balaa six mu jeex dugub ji balaa six mu jeex gerte gi boo ko jaayee mun na am ñu nax la wala nga naxe yooyu yëpp mun na see nekk waaye bii moom jaayante la boo xam ne yàlla ci boppam moo ko garanti ne tijaaratan lan tabuura tijaaratan lan tabuura yàlla ngay jaayanteet ndax yàlla moo la wax ne إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة خلي دايا في تاي أك مغني أك غورني أك جييني نيوي خلي أندونا يوننت دم أك موم بدر نيو أندونا يوننت دم أخد نيو أندونا يوننت دم فتح مكة نيو أندونا يوننت لي يوننت بغي يب نيو أند دفكو خلي تاي بونجي سن كولن جيتن نين دم بدر نيوم يب نيو أندا يو دم بدر باسكو لان باسكو انزل من السماء ماء فاخرجنا به انزل من السماء ماء فاخرجنا به انزل من السماء اسرارا فاخرجنا به رجالا على مستوى الرجوله على مستوى الايمان بالله على مستوى الصدق على مستوى الوفاء على مستوى الجهاد في سبيل الله لولو يالا ماينكو شي جوتاي بن واي لاج نما مونما اسكو نيون في شي ادنا ناخ ام نك دروا نيان يالا دغو الجنه مانكو نيون دانيو نيك الجنه با لون نين شي نياناتي mu ne ma ah ci naka ma ne ko gëm nañ yàlla déjà loolu mooy dugal di aljanna gëm nañ yàlla boole wuñ koog dara man qaala laa ilaha illa allah ah, ah musaddiqan muxlisan daxalal jannata wax nañ laa ilaha illa allah bon ñu ngi aljanna ah, ah, ba pare teg ci ñu ngi nii ak alxuraan di jàng bu dégg ba cëg ñu ngi nii di julli ñu ngi nii di or ñu ngi nii def lu baax ñu ngi nii di uy ji eh, ba janna passé foofu di janna passé wut foofu kenn du lor kenn kenn du naqaral kenn ku nekk yaa ngi bëgg nu sa morom gën a gën a doone góor ci sa kaw sax ah gën laa doon góor gën laa mën a tax taxqiq li nga xam ne bëgg nga ko te àggoo ko boo gisee sa morom mu di ko def itam doo mun du dul rek puus ko dolli ko ñaanal ko yàlla yal na ko yàlla yokk teraanga yal na ko yàlla yokk kattan yal na yàlla yokk leen teraanga yal yàlla yokk leen kàttan li imam wax Cheikh Cissé suñ làmmiñ yi amu dara lu ciw mën a génn lu yow yàlla sa jam yaa ngi nii daje ànd ak kóllëre guñ matal ànd ak sëq ànd ak ixlaas te yaa ñu wax jaam yu mel noonu ni ngay jëflanteeg ñoom yàlla na nga ko jëflanteeg ñii daja fii tey ci mbaar mi yàlla na ko teralee ñii ñëw tey ci dëkk bi euh, ngir dajeeg sa euh, maye yu kawe yoyu yal na ko dajalé yal na nga ko dajaleek ñoom yal na nga ak ñom lay ji nga xamné mom la leen mirina mom lañu mirina téro ñun ñëpp alam tara anna allah zahiru lay ji moy lolu mais batin bi moy li nga xamné kenn ku nekk ñu ko yek ci ñun asrarullahi nazilati min alsamaai ila qulubi إلى قلوب اختار الله وأعده لتكون حاملا لهذا النور وهذه الأسرار التي تتسرب دائما إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى ونرجو أن يكون كذلك وسيكون كذلك أيضا آه، لأنه ضمان من الله تبارك وتعالى بس من عمل صالحا آه، آه، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن ضمان من الله تبارك وتعالى للمحسنين وللمصلحين وللذين يتعاونون في الله بالله لله تلو المويدين ني داجا في تاي سي مارمي اك ني بغونو نيو تا نيوون با بار لو غنا شير سي دوم ادما دغ دغ موي خالص غيس نين ني نانكي رينت غيس نين ني نانكي ا ني نانكوي ساتشي غيس نين ني نان ني نانغي ديف لو نيك ngir ag ci xaliss yow nga am sa xaliss ne dina ko génne ngir yàlla mais yow ban nit nga boobu kooku ban nit la su ma 10 millions ngi ni génne naa ko ngir yàlla utuma ci dara mu ngi nii jeex na yow ban nit nga yow nekkatoo ci nit ñi yow leneen nga leneen nga loo xam ne yàlla rek ngay jëflanteel sama 1000 francs ngi nii génn naa ko ngir yàlla te awma ma beneen ban nit nga ëpp nga nit fi mu nekk nii ah te loolu yëpp mooy li nga xam ne mooy asraar yi nga xam ne ci la yàlla di jaar ak jaamam ngir def ko koo xam ne dafay nekk daa iman نموذجا يقتدى بهم في هذه الدنيا وايضا يكونون قاده لنا الى الملا الى الى الجنه جوجنا كويجي الى الفردوس الى الفردوس ان شاء الله تبارك وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حقا دغنا اي بعد baat yu tedd tedd ah yi jógee ci alaaji baraam xaqiqa mu boole ñu ko ben dars bo xamné ma mën ci baye xel bi muy ñëw munu ko bi muy dem munu ko waaye ci yaramam munu ko ci yaramam ah munu ko ci yaramam waye nak anzala min as-samaa'i maa'an naka noonu anzala min as-samaa'i asar yooyu boo xasee nekk ci yow ana nga feebar amatut tànk yu métti amatut bopp buy métti amatut dara dara amatut lu mooy anta taxta saytarati hada nuur alladi anzalahu llahu fi qalbika li yakuna min baadi zalika nabatan muxtalifan alwanuha ah loolu mooy mooy suñ jotaay bi mooy suñ daje bi te du man ma len ko wax waye nerina mo len ko wax ci lamagnu domam alam tara in allah anzal min لنوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله كل هذا عطاء من الله يوم كن نيكو يالا يالا كو ديف ليك تخ مو ديكو ديف موي نيت نيغا خامني جار نايكو موي نيت نيغا خامني واخ ناي يالا نيكو گم نان لا بوله وون لان دار نيغي توك دي دغلو سن ليغال dem nañ siyaare ji Medina dem nañ yóbbu xaalis samaan wa taatan ñoom ñëpp ñu ñëw wallahi al azim ñoom ñëpp ñu ñëw bi fulusihim ak seen xol ak seen xaalis ak seen yaram ak seen tukki yu sori yoo xam ne lu nekk mën naa xew waaye loolu yëpp amut li am rek mooy ida duitum fa lubbu bu ñu leen ooyee uy leen oo nañ leen uy si ngeen ki ngeen uy si xam ngeen ko du ay jëmm yu fi nekkoon jóge fi wala ay jëmm yu teew mais xam ngeen ki ngeen di uy si ki ngeen di uy si moo leen teeroo ne anzala min as an maa'an fa axraja bihi min as-samaraati muxtalifan alwaanuha te ñoo nekk nii setal ni ñi fi toog ñëpp ah ñu xees ñaa fi ñu ñuul ñaa fi ñu weex ñaa fi ñu gudd ñaa ngi fi ñu gàtt ñaa fi borom biir yu rëy yaa fi boroom biir yu ndaw yaa ngi fi comme sama biir bi eh, yëpp a ngi fi daje loolu yëpp ñu ngi puus rekk puus rek yàlla ñu oo nañ dem uy nañ dem uy seetal nag koo xam ne yàlla moo la oo nga uy si ko yàlla ngi wax ak yow ci boppam ne la eh, ujibu daawata daahi ida daani fal yastajibu lii wal yuminu bii laallahum yarshudun loolu la loolu mooy jotaay bi mooy mooy aljanna ji mooy alxuraan ji mooy jotaay bi mooy dëkk bi mooy taarix bu tedd bi ngeen dégg ne ay nit ñu tedd ñoo ci jaar ba mun a bàyyi lu kawe lu baax lii mën a kawe mën a bàyyi ay nit ñu baax ñu kawe ñu mel nii ci seen diine ñu am ay ilimaan ilimaan bu mat ilimaan alhamdulilah rabbil alamina نعمة من الله تبارك وتعالى ها ام نان اي كليفه يو خامني كو سي نيك ريك لو جيتي ريك دوخال كو اك نيت ما اديو سي دينه دغ دغ سا خول دينا سد دغ ام ساتيسفاكسيون باسكو بو بو ناخذ يالا يالا دولا نخ بو ناخذ يالا يالا دولا نخ بو نخه يالا يالا نيلا من مالا داك نخاتي ها مالا داك نخاتي ها

ñu mën a kontaan ñu mën a bég ñu mën a wax yàlla ne ko alhamdulilahi rabbil alamina marratan uxra sant bi beneen sant ngi nii beneen sant ngi nii topp ci mooy ndax jox nga ñu lu ñu la santee waaye ci kaw sant bu beneen sant dina ci toppaat parce que may nga ñu sant nañ may googu nga ñu may sant gi yaa ñu may ñu sant ba tey ñu ngi lay santaat ci sant googu ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal loolu ah ñu ngi am yàlla ñu ngi am bu baax yaakaar yaakaar ju dëgër ndax laaye bi ñu xale bi ubbiloo dëgg-dëgg kullil maani azahirati wal batina boo dee na ko gis ne ak suñuy mataalib yépp da nga gis ne ñu ngi ko ñu ngi ñu ko dëxanal ci biir laaye jooju may ñu ko yàlla nañ ko yàlla nañ ko mos yàlla nañ ko laal yàlla nañ ko dégg yàlla nañ ko lekk yàlla nañ ko barkeloo ci zahir ak ci baatin ñu ngi ñaan yàlla bu baax suñu Sénégal gi yàlla nañu ko yàlla sàmmal yàlla na ko yàlla yëkkati yàlla na ko yàlla boole ci réew yu kawe yi ndax dëgg-dëgg Sénégal am na peuple boo xam ne néew na néew na ci peuple àddina bi euh, ndax boo boo bëggee gis nit ku yiw ci mbaaxam boo gis boo demee senegal da ko fa fekk boo gisee nit ku am tawaadoo ngir yàlla ngir yàlla boo ñëwee senegal di ko fi fekk boo gisee nit ku tabe ku tabe di joxe te soxlawu ki dara yàlla boo ñëwee Sénégal di ko fa fekk boo gisee ku ubbi këram ku bëgg a lekk ñëwal lekk lekk kenn moomu ko biir yi xiif rek ñoo ko moom ñëwal bokk ci lekk gi nga ñëw lekk boo ñëwee senegal di ko fi fekk bon Sénégal googu bu ñuy wax kuntum xayra ummatin bi haasihil axlaaqi dëgg-dëgg danga néew nga gis réew moo xam ne di ko mën a dendale ak Sénégal ci ci mbaax ci gëm diine ci gëm seen sëriñ maa ngi waxtaan ak ay xale ma Sénégal moom de toute façon sénégalais moom lu ci mën di nekk yàlla may na ko ci xolam gëm yàlla nangul yàlla te jëluñ référence fenn ku dul yonent yàlla xam jéem nañ leen utal ay références yu bëri Negritude euh, Molière dangam ak ñoom ñëpp daf bëgg nañ leen def ay références ci kanam benn sénégalais mais sénégalais xolam dafay dàq loolu Sénégal xolam yàlla ci nekk xolam yonent yàlla Muhammad moo ci nekk xolam ki ci nekk mooy ki koy jiite yóbbu ko ci yonent yàlla Muhammad mu yóbbu ko ci yàlla kooku moo nekk ci xoli sénégalais bu mën ti nekk ak nu mën di mel ak fu man di nekkee loolu mooy sénégalais. moo tax itam yàlla mën na ko may teranga yoo xam ne mën na ëpp euh, suñ njort mën na ëpp itam suñuy plan ak suñuy technique ak suñuy nangam ak nangam yàlla mën nañoo sottil ah li nga xam ne bëgg nañ ko waaye bu ñu koy sottil yàlla na ci sécurité euh, jiitu yàlla nañ am kóllëre ci suñ biir réew yàlla nañu yàlla may kóllëre ci suñ biir réew yàlla nañu yàlla may jàmm ci suñ biir réew yàlla nañu yàlla may ñu yëgante ñu bëggante ñu joxante ay loxo ñu tàppwante loolu yépp mi ngi ci loxo yàlla yal na ko yàlla defal Sénégal ba mën a tabax ba mën a tabax réewam ba mën a bokk ci nit ñi nga xam ne dañoo kawe nit ñi nga dañoo lu lu xew ci seen biir waaye bu réew rek nañ ci bon yàlla ñu yàlla may ñu xam suñ Sénégal waxtu woo xamee ne Sénégal wax na rek Sénégal a wax li ci des suñu nekku ci ñun ñëpp ñu ngi ànd ci di Sénégal wax bu paree nag boo demee euh, soxna si naan la xale yi ndékkee guñ te amoo loo jox alors sa problème la ak moom am am amut affaire ah gërëm dëgg-dëgg imaam ci taxawaayam ci liggéey bii jàmbaar rek moo jàmbaar moo ñemee lii jàmbaar bu xam li ngay def du jàmbaaru kese rek mais jàmbaar bu xam li ngay def du xam li ngay def rek mais óolu li ngay def du óolu li ngay def rek mais mu xam ne pay dina ci topp te pay googu ci yàlla rek lay bàyyee ko te foofu rek la ko soxlaa soxlaawu ko feneen bon ñu ngi lay ñaan yàlla tawfiq ñu ngi lay yàlla yokk la tawfiq yokk la ndimbal yokk sa dëgëraay yokk la xel mu gën a leer mu mu gën a leer yokk la lu nekk yal na ko yàlla yokk ci yow sanga yaa ngi nii toog si Mouhamad Lamine a ngi nii toog yëpp pour ànd ak yéen wala leen ne li ngeen bëgg man tamit moom laa bëgg ñun ñëpp ñu ngi dugg ci anzala mina sama imaan cheikh Makke ngi nii toog Mouhamad naa ngi nii toog suñ sang ngi nii toog ñëpp ñun ñëpp li ñu bëgg yëpp yàlla nañu yàlla dugal anzala min as-samaa'i maa'an fa axraja bihi min as-samaraati yàlla nañu ko yàlla defal yàlla na yàlla génne yokk Médina barke yàlla na yàlla gën a yëkkati Médina yàlla na yàlla gën a rafetal Médina gën a yokkaat suñu itte ndax dafa am loo xam ne dëgg la ndigle dëgg la te bàyyi joxe na ndigal ci ansaaru diin danañ ci yàpp dëgg la bon nag ku topp ndigal rek ala fokk di nga àgg ci résultat boo xam ne daf lay kontaan loo euh, te ansaru diin noonu ko bàyyi tabaxalee ba in bay indi congrès congrès par at congrès xam ngeen congrès yéen ñi xam xam ngeen lan mooy congrès ak xam nga bu baax a baax congrès lu ko tax a jóg euh, euh, guichet yi ak waxtaan yi ak dugg yi ak génn yi loolu yëpp ku ne xam ne li si bàyyeekoo ko ah. su ko seeni borom téye ni ko war a téye oote wax même ñaari nit ngeen ànd leen même ñaari nit ngeen ànd leen ngeen samp seen daa daaira ansaaru diin parce que ñaari nit rek def leen ko astamaan ñetti nit ñeenti nit seetal nag loolu yëpp bu dajee dafay nekk benn force religieuse euh, euh, sociale boo waxee religion di nga tiital gaa yi nga xam ne loo wax rek ñu ne terrorisme na mais terroriser wuñ kenn xamuñ ko terroriser wuñ kenn mais bëgg nañ suñ diine terroriser wuñ kenn mais nangu nañ suñ dono suñ dono nangu nañ ko yéen tamit yéen a ngi am seen i dono wala yéen a ngi am seen gis-gis yu bees ngeen bëgg nii e eh, noppi leen ñun ñoo war a wax parce que ñoo am lu bees wallaay amu leen dara lu bees parce que loo wax rek waxoon nañ ko loo wax rek waxoon nañ ko lenn rek mooy dëgg goo xam ne saabit la mooy ihdina sirata al mustaqim ihdina sirata al mustaqim yàlla ñu yàlla samp foofu te dëgëral ñu am na am na am na ay problèmes yu bëri yoo xam ne ñu ngi traversé àddina bi jafe athéisme mu ngi bëri ti tasaaroo kenn xamul lu ko indi waaye xale yaa ngi tëb surtout ci réewi arab yi yooyu yëpp di di di di di génne xale yi ci diine diine du dëgg diine amut waaye dañ lay génne ci diine dugal la ci beneen diine athéisme diine la boo ko xasee gëm diine la ndax lim la sant ngay def lim la aaye ngay bàyyi waaye loolu mooy diine diine boo xam ne nag bu bees la benn xel rek moo ko ràbb ak diine boo xam ne yàlla dafa wax ne anzalna ilayka man yàlla maa ko wàcc ci yow dëgg-dëgg diine boobu moo gën a dëgër bon nag bayi sen xel ci xew-xewi jamono yi bàyyi leen seen xel ci internet bi deug deug am na njëriñ mais ñak na njëriñ itam ah su fekke amo xel mo suivre internet bayi ko parce que parce que daf lay indil ci sa bopp foo est-ce que li dëgg la est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est que bo ci xasee dugg rek vraiment yalla la yalla dimbalé waaye do am do am réponse doo am réponse question yi ñu yépp كان أموتي ريبونس نخ سقيل مي رك نعم واي كي خمنا نك مو ام تونتو موي واخ مو واخني ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم من رك نعم بون نيغي نيان يالا بو باخ ا يالنا يالا يوك يالنا يالا دولي يالنا يالا ديغرل yal na yàlla dëgëral taali bi bàyyi yëpp góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi te itam yàlla yàlla yàlla na leen yàlla nanguloo liggéey liggéey leen ci mbooleem liggéeyukaay yi liggéey leen ci liggéey leen liggéey ci liggéeyukaay yi ah fi fu ñuy liggéey pour génne fa dara rek bu ngeen demee liggéey leen fa artist yaa ngi fi di jouer ay ay ay ay ay ay pièces pour aide nit ñi yëpp liggéey la pour dañoo bëgg def dara dañoo bugg a soppi dañoo bëgg a yokk dañoo bëgg génn fañ ñu tëjoon ne ñun xamuñ dara mënuñ dara waaye dañu xam nañ dara mën nañ dara ah loolu yëpp ñu ngi ci seen loxo ñu ngi leen di ñaan yàlla ku ci nekk liggéey bi nga nekk rek jubal ci jubal ci ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na ci yàlla dolli. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. taalibe yu jël seen ñaq comme ni ko imaam waxee ñëw sukk ci seen kanam. nga ne leen tijaaratan lan ra mooy seen ziyaara nangu na kon sëriñ bi yaakaar naa ne eh, ni ngeen ko daan defee faatee ñetti salaat faatee boo joxee ndigal pour ñu yëkkatee ko jitaal bi ñun ñëpp ñu jàng ko